alhamdulilahi rabbil alamin eh, bi nga xamante ni yëf yi yëpp yàlla yembal na ko ci jàmm ñuy sant borom bi subhaanahu wa taala ci loolu eh, di wax ni ñàkk nañ ku mag koo xam ni bésam bi wane na ko ndaxte gis nga ndakaaru kawlax yoon wi bu ñuy ñëw foo jaar nit nit ñi di génnee di ko tatagal

aw ma lenn loo xamante ni maa ngi koy def ta safu ko ku ma fekk may ma koy imité mu daa dee dem ba ci bureau ak fu mu mën a ne day ñëw ne ma tey Sidy bi nga koy imité di ko tooñ mi ngi ree bég te boo doon dox ci mbedd mi dañ ñenn ñi dañ lay wax ne la bu jàppee mu wane cofeel gi nga xamante ni kii eh, am na ko ci man mu nekk loo xamante ni lu am solo am cofeel ci man am kóolute aussi tamit ci man si Lamine lépp lu mu xamante ni bi def nañ ko lu jëm ci lu mel ni ay théâtre ki mu ne ma xool ko su ma nee ko baax na pour moom soxlawul keneen di ko xool doy na ko su ma nee ko lii de gis naa ni des na mu ne kon baaxut loolu confiance boobu vraiment nekk na lu am solo mais sëy naa dama la bëgg a nettali la yàlla dafa dogal ma judd am ay problème mu bët mu top ma bi njëkk opération bi ma def boobu maa ngi am ay dix ans sam papa moo ma opéré woon moo ma faj ma ñëwaat di liggéey yàlla dogal ma amaat même problème même problème yi. jërëjëf xel mu xool bi xol bi moo fees euh, muy dellu siwaat ci relation ak xarbaax yi nga xam ne nii ki nga xam moom El Hadj Sidi Lamine defal ko xam naa ne laataa ñoo delluwaat parce que xam naa ne léegi rek ñu commencé jullee ki nga xam moom Sidi Lamine Ah, saa njóg ma bàyyi la nga daaneel ah, métti na métti ma amaat euh, même ma amaat problème yi mu gën a garaaw ñu defal ma devis ne ma ñu ma maa ngi war a fay un million un million deux cent soixante quinze mille bon man dama ñëwoon rek pour mu defal ma benn lettre garant IPM pour ma mën a dem ñu faj ma bi ma ko waxee billahi wallahi mu ne ma dañ la koy defal amul benn problème waxuma la def gi biñ ko defee ba pare mais sey naa li ci tegu ci ay ordonnance yu may jënd lépp moo ko yor te yoo xam ni vraiment nekkul loo xam ni ñu bari xam nañ ko loo xam ni ci suuf la yóbbu na ma màkk loolu nit ñëpp xam nañ ko waaye yi nga xamante ni bii mi ngi koy def ci suuf bon pour man perte nañ perte nit ñi perte nañ mais man aussi perte naa ku mag perte naa ku mag quoi perte naa ku mag wax dëgg fa yàlla ñàkk naa koo xam ni taxaw na ma taxawaayu baay daal taxaw na ma taxawaayu patron taxaw na ma taxawaayu baay kon ñàkk naa ku mag ko yàlla na ko yàlla xare àjjana waaw parce que ñëpp ñi ngi koy jaal fu ne ñi koy woo di ko waaw. Euh, mhm. jaal tamit sama waa ji nga xam ni moom nga nekkal boobu ba nga ni muy Saliou parce que wax dëgg fa yàlla gis nañ tamit yéeneem ak taxawaayam peut-être ñun ñoo mën a taxaw fii ñu ñuy gis waaye gis ngeen li nga xamante ni moo ngeen def sëy ñu ngi leen di félicité bu baax di ñaanal Sidy Lamine yal na ko yàlla xare ci àjjana yu karo kawe ya na ko yàlla booleek woy juróom wu góor di maam Khalifa yal na ko yàlla booleeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. jërëjëf El Hadj Sa Ndiogou ñu fàttali leen jamono ji yaakaar naa ne Issa